Sénégalais yi ñoo bëgg Ousmane Sonko lu mu def baax na lu mu def noonu la loolu la yàlla moo ko defal loolu lu mu def baax na dama koy ñaanal yàlla projet bi mu dikk Sénégal yi ba xale yu topp ko yàlla na ko yàlla may kàttan ak mën-mën mu def ko ba cinq yi jeex. mais da ngeen ko ciy jàppale. bon loolu ci ci liggéey bi loolu du ma ñoo koy décider man militant laa rek. Hmm. damay xaar mais est-ce jàpp nga ne da ngeen ko ci war a jàppale. wala yéen tamit da ngeen war a dëggal seen bopp parce que Ousmane Sonko euh, dem na élection 2017 am déconvenu euh, bon pas déconvenu élu euh, avec le taux du plus fort mm-hmm. dem na deux mille dix 2019 classé wu. Mm-hmm. troisième. Mm-hmm. mu ngemb candidat 2024 candidat boobu gagné élection bi. alors est-ce que yow jàpp nga ne da ngeen ko war yelleef la. Euh, ak yi nu tudd warugar la ngeen dem jàppale ko parce que vous avez été allié hmm. wala est-ce que jàpp ngeen ne yéen da ngeen di toog tamit ci opposition bi euh, xeex dëggal seen bopp comme moom man li ma gëm man kooku sama sama point de vue personnel la mooy dañu war a nekk des opposants da war a opposé parce que ànduñu ak moom faluñu ko Sénégal yi dañu ne programme xalifa doyu leen programme président Diomaye moo leen doy moom lañ fal nañ ko bàyyi mu liggéey ñun ñu opposé wu taxawal opposition ànd xeex dafay lu baax ñu apprécier encouragé su baaxul ñu ne ko président kat li nga teg ñu baaxul mu seen ko def nangam ak nangam ak loolu laa gëm man mais lu taxawu Sénégal arrêté loolu laay ànd ah bienvenue dans daa l' opposition man dama commencé tiit sax ndax Sénégal dina amati opposition. ah <laughs> man loolu yu bëri koo ci wax bu ne man opposé ba damay dem nguur. man loolu laa gëm man. te Ousmane Sonko nee na affaire bi du seddoo waa Benno Bokk Yaakaar ils sont toujours assommés ñu ngi ne tekk ne nemm kenn du leen dégg. kenn du leen kenn kenn du leen peut-être dañu toogul waxtaan ah? am nay bañkat. waaw Benno. waaw c'est que xalaat nga dinañu opposé man de am na ñoo xam ne moom dañu <laughs> opposé wu. ah si Benno. Benno de ñi amul woon responsabilité ñoo nekk di opposé wu de ñi ci amoon responsabilité mag yëpp. non man gëw ma ne noppi. man gëm naa am na ñoo xam ne. Hmm. ñoom seen parti moo leen intéressé. suñu waxtaanee ba mu parti joxe moo door gars yi dinañ topp